ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali woon di ko def depuis démb ba bisu tey bii alors li ñu gën a mën a wax mooy ne gis nañ ne dox nañ ci biir Kaolack ak ci gox yi nga xam ne gox yi fasantikoo la waaye am problème mu nawet bi comme ndox ni mu bëree partout ci biir àdduna bi alors démb commencé nañ ak Médina continuer dem Saam def nañ gaawaan def nañ ngaan def nañ xaaxum def nañ def nañ saam def nañ ndoo def nañu parcelle def nañu coofak def nañ saara def nañ daaru salaam def nañ abattoir def nañ nangaan ngaan woy alors loolu yëpp li muy wane rek mooy ne dox nañ dem ci population bi gis nañ ne tamit ci biir dëkk bi dëgg-dëgg am na ñoo xam ne ñu ngi doon jànkonteeg ay coono coono yu méttee métti waaye loolu wax naa démb ci xaaxu ma ne mbir la moo xam ne du Sénégal rek parce que ñi fi nekk ñëpp ay acteurs lañu donc ñi ngi suivre actualité yi nga xam ne moo xew ci monde bi parce que di suivre actualité du monde mooy tax nga xam fi nga toll ak fi sa réew toll fan la alors boo xoolee fi àdduna bi toll tey ci problème mu ndox boo xam ne ci asamaan la juge àdduna bi yëpp la alors donc Sénégal maa ngi wax ne desul ci loolu ginnaaw parce que bi président Macky sàll ñëwee ci bopp réew mi ak bi sab tey ak fi mu jaar ak li daan xew Kaolack Kaolack wax naa ne ñun ñii ñëpp fi la ñu juddoo fi la ñu yoroo xam nañ li fi doon xew démb xam nañ li fi nekk tey wax naa démb ne waxuñ ne lépp baax na waxuñ ne lépp pare na waaye tàmbali na liggéey bu am solo boo xam ne daanaka dem na ci 60 pour cent ci assainissement bi assainissement bi nga xam ne moom la lancé woon fii ci biir commune de Kaolack commune de Kaolack nag commune la boo xam ne car macha allah dafa rëy dafa yaatu parce que ku xool quartier yi nekk ci biir Kaolack ca quartier yi ci nekk daanaka mën na dëkk nga xam nga ne Kaolack nekkatul euh, dëkk bu ndaw loolu li muy wane rek mooy ne maa ngi jàpp ne effort yi nga xam ne état mi ngi koy def maa ngi jàpp ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu tëj chantier yooyu mën naa am problème yu bari incha allah dina nekk suñ ginnaaw loolu du caage ne ne dañoo wax ne bu loolu sax paree rek dañoo bàyyi président Macky Sall pour mu continuer dimbali Kaolack déedéet loolu lenn la ci li nga xam ne Kaolack soxla na ko président tàmbali ko di ko liggéey ba mu yegg 60 pour cent incha allah daañu ko gunge mu yeggali ko jéem a defar suñu gox yi jéem a seeti ni ñuy tabaxee wala bu ñuy tabaxee fi ndox war a génn ñu bàyyi ko mu génn fa waaye tabax kër ñëw ci digg mbedd ubbi fa say kanaal yoo xam ne tegoo ko fenn muy sotteeku 24 heures sur 24 nga ne état deful dara wala maire deful dara wala Mohamed Ndiaye deful dara wala keneen deful dara fekk yow sa bopp yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la ndox yi jógee ci asamaan loolu yàlla moo koy wàccee kenn mënu ci dara état lim man mooy taxaw pour defar assainissement mais dama ne buñ assainiroon dëkk bi yëpp ca comportement yi yenn nit ñi di am wuñ ko duñ jóg ci ay problème maa ngi masawu mbooleem famille yi nga xam ne tey su guddi jotee taluñu tëdd wala bu ñu tëdd sax xamul fu ñu tëdd lu métti la alors jël nañ ay engagement ci quartier yu bari yoo xam ne dox nañ ji yi gis nañ ne lii lañ soxla ñeelee lañ soxla mais ñeelee lañ soxla ànd ak engagement yooyu ñu jël yëpp incha allah dinañ taxaw balaa 24 heures yi nekk suñu kanam di jàll incha allah pour ñu fexe ñu honoré ko maa ngi remercier ñëpp en tout cas li ma bëgg ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel mooy Kaolack suñu Kaolack la ñun ñoo ko moomal suñu bopp. Kaolack balaa kenn ñëw di ñu wallu si ñun ñoo war a wallu suñu bopp Kaolack balaa kenn ñëw di ko defaral ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp. ñu gis ndigal li nga xam ne président daal la République da ko joxe barki Demba Ndiaye demandé ñi nga xam ni tey.

ñu gis tay ki nga xamni momu ndjay Rahma comme lima koy faral diko waxe mu ñew tay fi ci gaawaan di fatali ni man conseil municipal la té Kaolack ñoo ma fal responsable de parti la barki dembu la and ak président de la république sayal sama parti ci bir parti domi gawan la je suis un fils de kawlak li nga xamni président da ko la di ko pour ñu dimbale ko ko ci Mamadou Ndiaye ma du jële dàllam jël moyen jël ay doomi aadama ay nitam mobiliser wu ñëw gaawaan ndew ni wër banlieue bi di dimbale doomu aadama yi yaakaar naa man la ko defal man Moussa Fall loo xam ni du ma ko mënoon ma cee jiitu loo xam ni tey du ñu yoroon moyens yi ku ci nekk lañ mën ka def nañ ko ba pare dëgg la waaye nag duñ gisee mu indi dooleem ñëwaat ci banlieue bi di taxaw nit ñi di jàppale waa Ndorong jàppale waa gaawaan jàppale waa coofak nga xam ni fooy sama fief mais sa waay dañ koy rafetlu di ko ci gërëm di ko sant quartier bii damay wax ne moo njëkk ci Kaolack ki ko fondé moo fondé Kaolack Mbégane Ndour donc bu ñu fi dëkkee tey am fi situation bu mel nii à chaque fois bu ñu ko amee daaw bi ñu ko amee le président Modou Ndiaye Rahma fekkul woon ak ñun sax ñuy collaborer ak moom waaye moo ñu ci génnee kon ren su yàlla tombee ñuy liggéey ak moom bokk ci cabinet mu ñëw fii tey euh, ñëwin fi d'une façon boo xam ne yàgg na koo def damay wax ne lii duul politiciens yëpp a ko ñeme ah jug dem ci population bi ku ko def te jegewoo askan wi ñu yuuxu la mais bañ jógee ba léegi depuis démb ba léegi dox nañ 24 heures Modou Ndiaye jërëjëf rek ngay dégg. Aujourd'hui on a fait 72 heures pour traverser Kaolack on a sionné pratiquement l'ensemble des problèmes qui se trouvent dans la commune de Kaolack avec son excellence euh, euh ambassadeur itinérant monsieur Mohamed Ndiaye. Tout ce qu'on a vu constater aujourd'hui Là où on est passé dans la commune de Kaolak, toute la population de Kaolak sait aujourd'hui qu'il y a un leader qui est passé dans leur localité où ils ont aussi été reconfortés à travers sa, visite dans leur zone inondée. Une personnalité comme Mondiaï Rahman, si on le voit dans les eaux de Khahoun avec le marabout euh, L'eau était au niveau de leur poitrine, avec les journalistes qui sont présents et qui étaient avec eux. On a tout vu, on a tout constaté. Non seulement ils ont visité, mais ils ont en même temps fait des efforts pour amener des réconforts à travers ces populations-là. Il y a des aides en matière de motopompe, il y a des aides en matière de matelas, il y a des aides concernant aussi des, du riz et des fois, il y a des fosses qui sont déjà euh, foncées.